asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel fu ñu mën a nekk rawatina bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci Touba Vision ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wi nga xam ne ci lañu nekk muy safarul xayr di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yóbbuñu ca bis baak jàmm xam ngeen ni comme euh, at mu ne ni ko Touba Vision di defee saa bu màggal gi jubsee dinañu ànd ak yéen ci ay jataay yoo xam ne ay jataay xam-xam lay doon di ci ànd ak ay boroomi xam-xam di leen ci jàngatal ay tomb yu ama am solo ren nag xam ngeen ni seen télévision Touba Vision initiative bi mu jël ren ci jataayu waajal màggal yooyu di ci ànd ay boroomi xam di jël lenn ci xaside yi nga xam ne sëriñ bi bind na ko di ko ànd ak ay boroomi xam-xam ñu di ñu ko jàngatal sunu jotaayu tey bi nag ñu ciy ànd ak Serigne Omar Mbacke Qasim muy boroom xam-xam e, di gëstukat e, di jàngalekat nekk fii ci Touba itali ci gox bi ñuy wax Gardone nekk ki nga xam ne moo fi jàngal gone yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Gardone Gardone nag buñ ko waxee muy benn ci section yi nga xamante nii ñoom ñoo ëmb association Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne moo nekk Touba Pontevico kon sëñ Omar moomu lañ fas yéenee ànd ak tey ci seen jotaayu waajal màggal ci tomb waxtaan wu am solo woo xam ne ñu ngi ko jëmale ci ñaari xasida yoo xam ne xasida yu gàtt la waaye nag xasida yu ama am solo la muy xaaloo li kan ak xaaloo safihun nga xam ne buñ duggee ci biir waxtaan wi yaakaar naa ni lu baree bari dina leer ci bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel contexte bi ko sëñ bi bindee woon ak xew-xew yi nga xamante ni moo taxoon sëñ bi bind ko yooyu yëpp incha allah dinañ ci ànd ak fadilatu cheikh sëriñ Omar Mbacke Qasim kon bala ñuy tàmbali jotaay bi rek dañ koy bàyyi mu nuyoo boo ko defee ñu door dugg ci jotaay bi kon sëñ Omar ñoo bàyyi la nga nuyoo ak bokk yi. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmiddin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di nuyu ñu ngi jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Muntaqa Mbàkke al Bachir nga xamante ni moo fi toog toogaayu sëriñ bi di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu yokkal na aw fanam te gën koo dolli wér ba naal yi nga xam ne naal na ko ngir ngir liggéeyal ko sëriñ bi mu àggale ko euh, ànd ko mboolem taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di la siyaar leen siyaar di la siyaar yow suñu suñ waaraan jóg ñu ngi lay siyaar baax a baax a baax ak mboolem ñi nga xam ne ñoom nga àndal liggéey bi ñoom si Ablaye Seye ñoom ñëpp rek di rafetlu itam liggéey bi nga xamante ni télé bi ñu ngi koy def comme noonu nga ko waxee rek euh, kon yàlla na suñu borom tabaaraka wa taala defal ñu waxtaan wi ñu am ci lu kawe suñu njortu euh, la nga xam ne moo mooy jubluwaayu ñu def ko daal. yàlla nañ suñu borom tabaaraka wa taala defal ñu ci tawféex bañ am ci lu kawe suñu jor bisimilah. jërëjëf euh, sëñ Omar ci nuyoo boobu comme foofu mu daaneele rek di ñaanal bu baax a baax alxalifatul am mu cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom euh, yàggal ko fi lool te wéral ko te mbooleem naa li nga xam ne naalal na ko diine ji mu sottal ko te ànd ko ak moom. Euh, kon sëñ Omar ñu bëgg a waxtaane ci tàmbali bi xasiida xaaloo leer kan mm-hmm. xasida la goo xam ne yaakaar naa ne fukki bayit la hmm. waaye dafa amoon contexte boo xam ne moo taxoon sëriñ bi wax ko hmm. te am na loo xam ne sëñ Modou Lamine Diop borom irwaaw na di indi na ko ci hmm. kon euh, foofu lañ bëggoon a euh, tàmbalee jotaay bi sëñ Omar waaw bisimilah jërëjëf sëriñ Waadaan euh, laaj nga laaj bu am solo xasida googu ngay junj itam wax dëgg yàlla xasida la gu am solo goo xam ne itam jamono bii ñu toll mën nañoo wax ne actualité la actualité la ci nitug diine yan position la wa position la war a am ci li nga xamante ni moom mooy politique ak ñu ni demee euh, sëriñ bi ba mu ñëwee dafa ne coow rek ci yoonu yàlla euh, ñi ko xam ba muy nuru ku yor ay ay at yu néew ba bi mu doonee mag ay atam bari wenn yoon nag lañ ko xam muy topp siraatal mustaqim jaar yoonu tasawuf euh, nekk koo xam ne daal lu baax rek lay xeeñtu waaye nag mu nekkoon ci jamono joo xam ne jamono ju dooy waar la moom sëriñ bi ndax jamono booba damay faral di wax ne bu ñu yaakaar mukk ne sëriñ bi bi muy ñëw fekk fi woon ay boroomi xam-xam ah kay fekk foo fekkoon na fi ay boroomi xam-xam ay kaang fóori ay mokkalkati alxuraan ñoo xam dañoo mokkal alxuraan lool dégg fiq lool macha allah waaye nag euh, jàng ak jëfe dafa wuute nit ki mën naa jàng ba jeexal téere yi waaye mën a gula not bakkanam loola waraloon nag sëriñ bi nekk koo xam ne ku ràññeeku woon la ci jamono boobu ndax dafa doon koo xam ne dafa jàng ba noppi lim jàng mu di ko pratiquer di ko appliquer ba appliquer gi mu koy appliquer sax léegi-léegi mu jël position boo xamante ni ñi nga xam ne jàpp nañ ne nit war naa mën a jàng ba pare jaar ca weneen yoon di di doxe nu mu dul nu mu dul nu mu jàng lu bokk rek la mu jàng dañuy jàpp ne kii daal dafa dese yeew dafa dese yeewu ndax bu yeew woon ndax dafa am ñoo xam ne danañ ko ñëw danañ ko wax ci kanam dañoo jàpp ne képp koo xam ne am nga mbooloo wala ba nga doon ku ñuy déglu wala sa kàddu jote fu bari jàpp nañ ne boo nekkee ci jamono bii ci am réew loole occasion la boo xam ne war nga ko mën a jëfandikoo utiliser ko ba am ci àdduna moo tax nag buñ gisee koo xamante ni dafa lànk ne loolu du ko jël waaye fa jaar rek mooy fokk suñu borom tabaaraka wa taala jaarloo da leen di jaaxal dañuy jàpp ni kii dafa yeewut wala dafa xamul àdduna loolu nag moo leen wuuteele woon ak sëriñ bi ba tax ñu koy baatal ci position yoo xam ne yooyu nga xam ne moom la jëloon bi amee ñenn ñoo xamante ni jàppoon nañ ne comme Mamor Anta Sali xëy na sa daan na daan na maanaam am na lu mu seqoon ak Lat Joor ba mu fi jógee dafa am ñoo xam ne dañoo gis ne comme yàlla dogal na Lat Joor xaritu baayam la woon te am na lu ñu doon seq kon léegi sëñ bi war naa mën a dem euh, jage ji Lat Joor bu ko defee dana mën a am la nga xamante ni dana mën a am dara ci koom ma nga xamante ni moom dana ci mën a dund daal comme ni mu amee léegi ndax bëri na ñoo xamante ni maslaa yi ñuy maslaa ak politiciens yi yëpp li ko waral mooy bëgg bëgg dund léegi nag daal ko koy wax nag ne ko léegi te nga jéem a jege ji Lat Joor ndax Lat Joor boo ko jegee jegee ah boo ko defee de danga danga da nga ci mën a làq ay ay ay ay njariñ da nga ci mën a am ay njariñ yu wér a wér wér di ko xeemeem loo daal jaxasoog buur yi mu daal di rafdu loolu nangu ko def ñu jàpp ne nag kii dafa ñàkk yeewu ndax occasion bu mel nii nit waru koo am di ko rate parce que ñoom foofu la seen xalaat toll sëriñ bi nag daal leen di tontu comme ni nga ko waxee rek xaaloo leer kan dafa nekk xasida goo xamante ni fukki bayit la waaye am na geneen xasida goo xamante ni xaaloo safihun la tudd moom itam xaw naa nuróog gi waaye yëpp daanaka sorewul lu ñuy wax boo seetloo xaaloo leer nag dafa ñëw ci euh, irwa waaye xaaloo safihun suñ mat laa mi dafa wax ne maanaam jamono yi muy bind irwa xëy na wattuwutoon wattuwu ko woon te it gisul mbind ma xëy na loola waral dugal dugal ko ca waaye boo seetee ba ci biir daal da gis ne daanaka ñoo bokk lu ñuy wax bu dee xaaloo liir kan moom fukki bayit la bu dee xaaloo safihun moom dafa war a toll ci fukki bayit ak ñett waaye sëriñ bi daal tontu na leen ñoom ñoo ñu nga xamante ni ñoo koy baatal ngir lànk gi mu lànk ne du laal dërëmu nguur ñu ne kii daal dañoo jàpp ne daal dese naa yeew sëriñ bi wax ne xaaloo li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaïsa tuxni kulla maaxin te xaaloo wax nañu ne wax nañu lii ma ne ma irkan li abwaabi salaatin jàngal jëm ci bunti buur yi jàngal jëm ci bunti buur yi jéemal a jaxasoog ñi nga xamante ne ay buur lañ ndax lan mooy su boobaa boo ko defee dee nee taxus jawaa isa tux nii kulla maahin da nga fa làq ay may yu dijj yoo xamante ni dana la jariñ ci waxtu wu ne maanaam daal saa yoo xam de fexe ba lëngoog ñi nga xamante ne ay niti nguur lañ danga ci amee njariñ yu bare bari bari kon daal loolu lañ lay xeemeem lool sëriñ bi nee na ma tontu leen fa ma ne leen xas bi yarab yi man de sama borom doy na ma sama borom doy na ma yàlla ñëpp la doy alaysa allaahu bi kaafin abdahu alaysa allaahu bi kaafin abdahu yàlla day ñëpp la doy waaye dafa am ñaar yu sëriñ bi saxal fi yoo xam ne benn bi moom kenn wérantewu ko waaye nag waqt dafay tubbi fii fi nit ñi amee problème sëriñ bi dafa wax ne man yàlla doy na ma waaye dama koo doyloo ndax yàlla moom doy na ku ne waaye nag doyloo gi ak wóolu gi nag foofu lañu ñu bari am problème sëriñ bi nee na man ginnaaw ba ma xamee ne yàlla dafa doy man dama koo doyloo waxta faytu bi walastu raadiya xayral ilmi wa diini du gërëm lu dul xam-xam ak diine lii ngeen may woo di ma ci jëmee awma ma ci man daal sama yite lenn rek la muy xam-xam ak diine xam-xam ak diine wow ba yi tamit da ci déggee am njariñ wala boog am solo goo xamante ni lii di xam-xam am na ko ci yoon wi yoon wi dama koy faral di wax yoonu xam-xam la kenn mënu cee génn xam-xam képp koo xamante ni mi ngi ci nekk di wax di doye dal xam-xam bay boo nga xam ne xamul yoon wi wala bokk ma ngay def lu wuuteeg la nga xam ne moom la sëriñ bi wax sëriñ bi moom xam-xam la jiital ci lu mu mën di doon waaw sëriñ bi wax na ne waman tajarrada li taatil jalil qabla taallumin fa xumbarun laa nabil képp koo xam ne da ngaa fëttiku ne ne da topp yàlla dafa soo ko yéenee jaare ci jàng ba xam nooy topp yàlla nee na ab dof nga rek boo xamante ni amum xel kon sëriñ bi nee na leen man lii sama yite daal mooy lu jëm ci diine ak li nga xam ne moom mooy xam-xam waaye yii ngeen may woo jëme ci jëme ma ci taxumaa jóg hmm? ne leen walastu arju yaakaaruma wala axsaata te ragaluma si waa maliki ku dul sama borom yàlla mi ma moom daal moom laa ragal moom laa yaakaar lu tax ma ragal ko moom kese yaakaar ko moom kese li annahu ngir na ko moom yàlla la yox nii nii wayun jii nii jàlla màgg na yox nii nii moo may jariñ yu jii nii di ma mosal ñaari mbir yooyu nag mooy tax ku nekk ci moom mooy tax nga mën a jàkkaarloog buur wax ko dëgg wala boog doo ragal doo doo doo maanaam buur du la mën a dévier ci yoon wi nga jël ndax su fekkee ne dëgg la fexe nga ba yaakaaroo ku dul nguur mooy li nga war a am ci alal ak li nga kii yaakaaroo ko ci nguur sa bopp sa sa ñàkk nga yaakaar wala boog say lijjanti nga yaakaar waaye yaakaaru ko ci buur waaye teewul ragal nga buur du sotti boo ragalee buur bu fekkee ne ragaloo buur ñeme nga buur waaye da yaakaar buur du sotti kon ñàkk ragal ku dul yàlla nga xam ne yàlla rek ngay ragal euh, yàlla rek ngay yaakaar loolooy tax nga mën a jàkkaarloo ak nguur nguur du la mën a défier ci sa objectif moo tax sëriñ bi ne leen su fekkee ne mbir la mu may yaakaar bëgg cee jot yàlla laa ko yaakaar su fekkee ne mbir la moo xamante ni dama koy ragal bëgg caa mucc yàlla moo ma ci musal kon kay du ma jël yaakaar jooju di ko wékki kenn ku dul moom duma ma jël itam mus mucc goo nga xamante ni moom laa bëgg di ko wékki ku dul yàlla suñu borom tabaaraka wa taala moo tax mu ne leen walastu arju wala axsa siwa maliki li annahu jalla yuxnii nii wa yujniini mu mel ne da leen a laaj ne leen annaa ufawwidu annaa ufawwidu axwaali li man ajasu an xaali anfusihim ajsal masaakini naka lay jële samay mbir di ko joyal di ko wéer ñoo xam ne ñoom ci seen jëm bopp maanaam dañoo lott dañoo lott ci seen biir bopp maanaam seen biir bopp mënuñ ko lijjanti te gaa yi nga xamante ni ñoom la ñenn ñi topp ba di bëgg ci ñoom dara ba mu jaral leen sax léeg-léeg ñuy jàdd ñoom ci seen jëm bopp am na loo xam ne bëgg nañ ko te mënuñ ko am te jii fi ne nii bis boo xamante ni dem nañ ba wata rek da ngay gis dañuy wàcc ba tolloog nit ñi ñu ci bari luñ dawul def dañ koy nangoo def di sukk ci gaay jaaykati caaf yeeg lu ne lu ne ñu ko def day mel ni du woon ñoom waaw di yalwaan ku leen ku leen falaat dégg kooku koy wax dëgg yàlla su fekkoon ne am na kàttan loolu du ko dal kon moom carte yi ko nit ñi sànni sànnil ci lay sukkandiku ba am doole kon moom amul doole doole ja mooy askan wa sëriñ bi nag teeloon naa xam lool nee na ñii day dañoo lott seen mbiri bopp sax mënuñ ko lijjanti seen mbiri bopp mënuñ ko lijjanti léegi nag du ma fekk koo xam ne mbiri boppam mënu koo lijjanti ma ma koy wéer sama mbir su may wéer samay mbir kay dama koy wéer koo xam ne maanaam maanaam soxlaalul kenn dara kooku mooy yàlla suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne an na u faw yi du axwaali li man ajasu an xaali ma ajsal masakin comme ni nga xamante ni maanaam miskin yi miskin bi lott na ko ba amul lum dunde nee na ñi seenu lott noonu la mel kon nag du ma wëlbatiku nag di leen tàllal loxo kuy tàllal loxo kenn du ko tàllal loxo dégg nga aw kay fa yabaasu nii xubbul xutaami ilaa jiwaari man dóoruhum rawdu rawdu sayaatini naka la may yóbbee naka la may yane maanaam bëgg poñet poñetum àdduna mii lee nga xamante ni dafay jóge ci buur sëriñ bi poñet la ko jàpp poñet nag bu ñu ko waxee mooy tey ji boo tegoon sa dara loo bëgg taal mel ni am matt nga bëgg koo taal wala boo nga bëgg taal dara matt yu sew sewaan yooyu ak ñax yeeg mboob yeeg xob yu sew sewaan yooyu ngay jottali ko ngir taal la nga bëgg a taal loolu la tuddee lay jóge ci buur muy poñet xutaam nga xam ne dafa amul solo moom moom nag gaaw naa moom booy taal dara ci ngay ci ngay ci ngay jotli ko ngir taal ko waaye day naan bëx bëx rek daal di fay sëriñ bi da koo ñàkkal solo ba tuddee ko poñet dégg léegi nee na bëgg poñet moomu nag du ma yóbbi mukk nag may dem di dëkk ak ñoo xam ne seen kër ya mooy dëri seytaane bu fekkee ne seytaane maanaam jug na bay fox foofu lay fooye kon sëriñ bi fii la nekkoon palais de la république euh, euh, da koo jàppee da koo jàppe raw du sayaatin la ko jàppe nee na man bëgg ca lañ am du ma jaral mukk ma dem di taxaw ci ñoom ak di jaxas ñoom déedéet déedéet mu ne in kuntu xasanin aw kuntu za watarin daawtu zal ayna qabla rai wa chiini su fekkee ne damaa jàq day wala ma nekk koo xam ne am naa benn aajo duma tàllal sama loxo nguur de duma ko tàllal itam nit ak nguur waaye ka ma koy tàllal mooy borom aras zal ayni qabla ra'i mooy borom aras kooku rek laay tàllal sama loxo waaye duma jël sama loxo mukk di ko tàllal koo xam ne maanaam maanaam nitu nguur mu ne wa huwa al muhiinu allazi laa say a yujisuhu wa mu al mukawinu ma sha ay takwin yàlla de mooy ki nga xam ne mooy dimbalee mooy ki nga xam ne itam dara tëwu ko yàlla suñu borom tabaaraka wa taala dara tëwu ko mooy ki nga xam ne itam lu mu bëgg amal dana ko amal ca ak lu mu mën doon bu ko bëggee amal da koy daal di amal innama amruhu isa arada shay'an an yaqula lahu kun mu ne leen in saa taajila amrin kaana za ajalin aw saa taajilihi yabta ila nee na yàlla su fekkee ne bëgg naa gaawal dara maanaam gaawal dara mu daal di am ca saasa da da loola dafay daal di nekk lu gaaw daal di waaye su fekkee ne maanaam la mu bëgg dafa am waxtu mu ko bëgg te waxtu woowa jotugut faaw loola day xaar ba waxtu wa jot rek mu soog ko amal kon yàlla ci coobareem lay joxe kon nag yow mi nga xamante ni da maa gis jàpp ne xëy na àdduna nekkul sama loxo euh, loolee man man xam naa li yàllay dogal yàlla suñu borom tabaaraka wa taala lépp lu mu bëgg gaawal mu am rek dana am waaye nag lépp loo xam ne jotagul kenn mënta fexe ba mu def ko te neexu ko Euh, mu ne yaa man yaluumu falaa tuksir wa da asali is lastu min faqdati euh, faqdati dunya bi maxsuuni yow mi nga xam ne yaa ngi may yedd ndax dañoo continuer di ko yedd parce que loolu lañ mës a gis am possibilité jokkoog état am possibilité jokkoog buur am ca la nga xamante ni maanaam moom lay moom moom mooy mooy lam yore ba pare lank ne doo ko def loolu ci boppam dafa réyanti ñoom nan la mën a nekk ba tax képp ku koy def rek dañuy jàpp ni yow mii danga ngaa xamul àdduna moo tax ngay def lii waaye boo xamul àdduna da nga jéem a mos ànd ak bóor yi pour mos mu ne leen yaa man yellowu mu yow mi nga xam ne danga may yedd wala toog sir bul bari yedd gi wada azali bàyyil yedd gi nga may yedd nga ne ko ah, lu tax mu ne islastu min faqtadi dunya bi ma masuun maanaam ñàkk gi ma ñàkk àdduna nga xam ne gisoo àdduna ci sama loxo loolu yaa ci am problème waaye man awma ci problème yaa ci am problème waaye man awma ci problème kon ñàkk gi ma ñàkk àdduna nga xam ne gisoo ko sama loxo loolu yow la jaaxal waaye man jaaxaluma dégg nga mu ne leen nag su fekkee ne in kaana ay biya zuhdun fi xutaamihimu fa zaaka lay nafisun laysa yuxsin su fekkee ne sama ayib daal du lenn lu may dëddu gi ma dëddu seen poñet mii nga xam ne moo nekk seen loxo muy alal yi ñu yore ak pos yi dëddu gi ma ko dëddu su fekkee ne maanaam loolu mooy sama ayib d'accord naa ci ayib jooju ayib la joo xam ne ju gànjaru la ju foor la joo xamante ni du lu may jàqal dégg nga kon loolu la leen sëriñ bi tontu wan leen fi mu toll malheureusement nag ñu bari ba léegi jamono ji sax xamu mënuñoo comprendre loolu ba buñ gisee sax kenn koo xam ne nangu naa àddu ci politique waaye dana bëggu ci poste bëggu ci dara réew mi baax rek moo ko tax a jóg dañuy yaakaar ne yow mi si boppam da nga yeewul léeg-léeg nga dégg ñu naan ñu ne diw sàngam ne day jàppale diw waaye nee na bëgg ko teg sax bët dañ naan kii lu muy def nii kii da koy jéem a xam di ko jot téléphone bu ko defee bu ëllëgee bu faloo mën laa mosal dara mën laa jàppale fekk gis-gis yi bokkut am na ñoo xam liñ gëm mooy bu ñu gisee diw ne moom lañu war a àndal dañuy ànd ak moom parce que jàpp nañ ni kii mën naa mën naa jariñ réew mi ëllëg waaye soxla wuñ sax numéro téléphone dégg nga léegi nag xalaat yi nga xamante ni ñoom man doomu aadama yi am ba nga xamante ni boo gisee koo xamante ni mi ngi ci politique sax di jéem a politique gis fa mu nekk bu fekkee ne gis foofu boppam rek day daal di bàyyi loolu baaxut loolu baaxut kon la nga xamante ni moom ngay dundee dafa war a doon loo xamante ni euh, dafa war a doon loo xamante ni maanaam sa ñaq bopp nga yaakaar ak say lijjanti yi bopp waaye bul wekku ci nguur ndax sëriñ bi bokk na ci lim wattandiku wattandikuloo ba tàyyi mooy ñuy wattandiku keneen du ñu mënal. Mhm. maanaam ñuy defal li ñuy def suñu defal suñu bopp. ndax xamoon na ne képp ku la mënal ak dana la sañal. Mhm. te képp koo xam ne waru laa sañal bis bu la sañalee rek musibaam. Mhm. parce que ñoom li ñuy joxe li nga gis ñu koy joxe amul lenn lu ñuy joxe lu dul am lu dul am na luñ am na luñ ca bëgg moom. benn benn ñu joxe la ñu jox la ko bëgg nga waxal leen dara. wala waxaloo leen dara waaye nga noppi ci loo war a wax. te ñaar yëpp benn baaxu ci xam nga benn nga waxal leen loo xam ne bëgg nañ nga wax leen waxal leen ko wala bëgg waxoo dara waaye am na loo xam ne war nga caa wax te wax nga arrangé wu leen nga noppi lii mooy waral ñu lay jox parce yii yëpp looloo ko waral waaye amuñ len la ñuy joxe ngir yàlla ñoom jamuñ jamuñ yàlla ni wuñ foofu su ko defee kon looloo loolu la sëriñ bi teeloon a xam nag ba teg euh, murid yi ci yoon woo xam ne lépp luñ bëgg nañ boole seen i dërëm ak seen i ñaat dërëm ngir amal ko bu ko defee dañuy am seen autonomie bopp kenn du leen fonto kon sëriñ bi daal fii la nekkoon ah euh, loolu moom yaakaar naa moom lañ mën a tënk ci euh, li nga xamante ni moom mooy xasida gu njëkk gi muy xaarul yarkan euh, macha allah sëñ Omar ci tënk bi nga xam ne moom nga ñu tënkal xasida xaarul yarkan ak ni nga ñu indilee context bi nga xamante ni noonu la ko bi mu xëyee woon ba sëñ bi wax ca lam ca wax nga xam ne booba ñuy jamonoonteeg moom ni ko sëñ Mourou Lamine nettalee ci Irwaaw Nadim ku mel ne sëñ euh, Ndumbe Mar Silla moomu ak yi ñu doon xiirtal sëriñ bi waaye nga gis xaside gi ni ci sëñ bi feeñalee ak dogu waaye ak tawxiid comme ni ñu ko waxee mm-hmm. maanaam wan ni moom maanaam dafa doyloo yàlla hmm. yàlla da koo doy ba noppi wëlbati ko moom doyloo moom yàlla nga xam ne lu yàlla dogal ci moom rek neex na ko hmm. loolu tam taxawaay la boo xamante ni taxawaay bu am solo la waaye tam beneen beneen mbir moo xamante ni bu mat a bàyyi xel la ci xasida yi hmm. muy wane ni ñoom niti nguur yooyu euh, euh, seen barab ya mooy raw rawdu shayaatini waaw mooy seen seen kër ya fa la saytaane di foyee kon yaakaar naa ne kër goo xamante ni seytaane fa lay foyee ah moo tax mu moytu loo ñu woon di jaxasoog ñoom mhm. te wax na ci ay wax yoo xam ne xam naa jotaay bee xat waaye bu xatul woon yooyu yëpp yaakaar naa danañ ci dikk muy taxawaay boo xam ne daal taxawaay bu am solo la nga xam ne euh, sëñ abo mi nga xam ne moo nekkoon imaamu usine bentali rahmatullahi alayhi mësoon na cee def jàngat bu am solo jamono bi sëñ saaliwu rahmatullahi alayhi wuy jee boroomam bi nga xamante ni euh, euh, gouvernement bi ñëw nañu ak seen délégation ñëw di jaare ci Serigne Cheikh mu Serigne Saliou mhm. nga xam ne tey sëñ Mountakha mi nekk xalifa moo ñëwoon ca jotaay ba waaye ba ñu waxee ba la ñuy wax ba noppi ñu ne sëñ Cheikh dañoo bëgg kon nga tontu Ablaye Wade euh, euh, delloo ko njaal mi comme ni ko jaalee sëñ Cheikh da koo xamal ne ko lii sëñ Mountakha wax doy na sëkk sëñ aboo dani keroog daf maa yóbbu ci contexte xaaloolu kan nga xam ne kon sëñ Cheikh moom ku dégg mm. maanaam xasida gi la yàlla ko yàlla wéral mm-hmm. muy taxawaay boo xam ne taxawaay ba am solo la mm. waaye mel euh, ne dañoo séddale woon ñaari xaaj mhm. ñi jàppee sëñ bi ne kii dafa xamul àddina dafa yeewuwul ñeneen ñi jàppee ne kii kat dafa dese mhm. ndax teraanga ju mel nii naka lañ la koy séddee ak fi jamono ji toll nga defoon ginnaaw mhm. ñu ne ab safih la ah. kon xam naa foofu rek lañ lay bàyyi nga dugg ci xaalu safihun bi dégg nga waa koy jërëjëf suñu waaraan maanaam euh, moom itam loolu la rek ndax comme ni ma la ko doon junjee léegi rek safih nag bu ñu ko waxee mooy safaanu bu rasid safih dafa am ci sariya sax bu fekkee ne dem nañ ba àtte ni kii safiif la kooku duñ ko duñ ko bàyyee alalam alalam duñ ko bàyyi mu ci soppandikoo nu nu mu ko neexee parce que dañoo jàpp ne am xelam matut comme xelam matut nag duñ ko bàyyee alal ji dañuy xaar daal lépp loo xam ne bëgg na ko bu ñu xoolee ba gis ne farata la wala boo ko lu mu war a am la su ko ñu wutal ko ca loolu mooy safiif rasit nag mooy koo xam ne ku ku juum xel la na yi soppandikoo ci mbiri boppam euh, teganew ci yoon nag bi ñu gisee sëriñ bi nangoo bàyyi na nanguwut a laal lu jóge ci ci ci nguur mm. nanguwut a joxasoog buur yi dafa am ñoo xam ne li leen seen xel jox mooy kii daal safiir la dafa des mm-hmm. sëriñ bi tamit daal leen di tontu mm-hmm. lu toll ci treize bayit fukki bayit ak ñett mm-hmm. mu ne xaaloo safihun li sarfi an humu basari wa raxbati an zabil asiyaani fil basari nee ñoom day nee nañ dama maanaam kii de ku dese la ku dese la ngir wëlbati gi ma wëlbati sama gis ci ñoom ak itam sib gi ma sib maanaam borom mooy borom mooy ga maanaam ñi nga xam ne dañuy mooy yàlla sib gi ma leen sib nangumaa jaxasoo ak ñoom dañ bokk ci mbindeef yi am na ñoo xam ne loolu tax na ñu ja jàpp ne maanaam man daal damaa dese raxbati fii fiiwul fiiriwul xeemeem waaw raxbati an dafay firi comme ni nga xamante ne noonu lay noonu la yàlla waxee ci wa man yarghabu an millati ibrahim kooku sip lay tekki foofu xaaloo euh, safihun sëriñ bi nee na ñoom day nee nañ kii ku dese la li taf yi di ila maliki amri anil kawni fii safihin wa fii kadari ñoom day nee nañ kii ku desee la lu tax mooy damaa jël samay mbir wéer ko ki nga xam ne moom mooy ki ma moom muy yàlla suñu borom tabaaraka wa taala ma daat koy wéer samay mbir bàyyi lépp lu dul moom ndax lépp lu dul yàlla rek mbindeef la ma bàyyi loola loola nag fii sax fi moo fi kadri laa ko def am na ñoo xam ne way gi ñuy way ak jaamu gi ñuy jaamu yàlla ak doyloo gi ñuy doy yàlla doyloo yàlla na fekk ñu am nekk ci xiwal mais saa buñ nekkee ci jafe-jafe dañuy deltu ginnaaw sëriñ bi nee na ma doxewu ma noonu fii sax fi moo maanaam bu fekkee ne jamono neex na damay doyloo yàlla waaye bu jamono naqaree itam damay doyloo yàlla waaw loolu itamit lu mat a bàyyi xel la nit ki pas-pasam lu jamono metti métti waru ko tax muy tàbbi ci loo xamante ni naka jekk da ko bañoon kon nit warul di soppiku sëriñ bi wax ne xaalu safihun yi xubbi xaaliqi maliki wala mu akun baraaya astaki darar ñoom day nee kii dafa dese lu tax mooy bëgg gi bëgg gi ma bëgg yàlla mi nga xam ne moomoo bind moomoo moom dama nekk koo xam ne duma ma jàmbat mukk samay lor ñeel mi fi doyloo gi ma doyloo yàlla ba duma tàllal loxo wala ma jàmbat samay mbir kenn sax ku dul yàlla nee na loolu tax nañu ne kii day dafa dese sa qaalu safiun li kaw nii lam axaf ahadan wa ma rajawtu siwa rahmaani zil qadari ñoom day nee nañ kii dafa dese lu tax mooy nekk gi ma nekk di koo xam ne ragaluma kenn yaakaaru yaakaaruma kenn ku dul yàlla mi aji yërëme ji nga xam ne lu am moo ko dogal mu ne xaalu safihun li xaf fii nahja malja ina asayqi ya fahlil xayri fil xabari am na ñoo xam ne nee nañ kii dafa dese lu tax mooy xeeñtu gi may xeeñtu yoonu sunu sunu sunu rawukaay bii nga xamante ni moom mooy Cheikh Sidiya Cheikh Sidiya Baba mi nga xamante ni koy yiw la ci xibaar ba maanaam moom mi nga xamante ni moom mooy Cheikh Sidiya kilifa gu màgg a màgg la ku sëriñ bi joxoon cër la léegi wax nañ ne sax jël na ci moom wérd wérd xaadir nee na nag am na ñoo xamante ni bi ñu gisee ma dëddu lépp lu jëm ci àdduna nekk ci ay wérd dañoo jàpp ne kii kii daal dafa dese toloon nag buñ jàpp ne lu bees la yàgg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ njëkk a lañ njëkk a taxé ak nitoo di ko ba yàlla di ko ko di ko ko weddil maa anta bi ni amati rabbika bi mañ nuun maa anta bi ni amati rabbika bi mañ nuun ndax loolu maanaam bokk na ci li nga xamante ni moo gën a mën a yàqal nit moo tax ñi nga xamante ni ñoom ñooy yéefar ku faaru Quraysh dañ daan def bu aj aj gi jotee am ñoo xamante ne dañuy def ay benn benn tasaaroo ci mbooloo mi di leen di leen di leen wax ne bu leen déglu Muhammad ndax dafa dof parce que nit ki mën nga koo jéem a déglu waaye bis boo déggee ñu ne du du nit rek dootoo considérer li muy wax boo déggee mu wax wax ni sax danga nga naan tey xëy na rab yi daa dikkul rek waaye euh, moom moom moom moom doo ko jàppee nit daal moo tax yàqal nit bokk na ci li gën a gaaw nga fexe ba gëmloo nit ñi ne kii dafa dof yàlla nag xam ne loolu dafay yàq message bi mu daal di tontu ci alxuraan ne wa maa huwa bi qawli shaa'irin qaliilan maa bi qawli kaahin maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun wala bëri na fu mu ko wax daal fu muy weddil yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kii lu wokkutub dërëm wokku sëriñ bi nag ne ñoom day dañoo yaakaar ne kii dafa dese ngir jël néegi ma ne coow jaar ci yoonu yoonu ki nga xamante ni moom mooy sunu rawukaay te mooy Cheikh Sidiya di jëfandikoo ay wér yu mel noonu am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne loolu ak ak ak dese la waaye bi ñu waxee loolu lépp sëriñ bi nee na ma tontu leen ne leen foqultu ma ne leen xàllu sabili puus leen sama yoon watruki watruku asali te ngeen bàyyi yedd gi ngeen may yedd ndax maali si waa taati rahmaani min watari man daal awma benn aajo benn aajo lu may lu may topp aji yërma ji mu yàlla suñu borom tabaaraka wa taala yéen yéen am yitte ay àdduna ak ay buur ay buur la la buur di jox waaye man li ma yitteel mooy jaamu yàlla jaamu yàlla topp yàlla képp mooy li nga xam ne moom moo tax jub waaye li ngeen di wax nii man yitteelu ma mu ne maali si wallaahi ismal lahdu xayyabanii wa jaa anil malakaani dahru min wasari bis boo xamante ni maanaam jël nañ ma yor ma ci bàmmeel ba bàmmeel muur ma ci wet gu ne ñaari malaaka yi nga xamante ni mooy munkar ak nakiir ñëw di ma posé question di ma laaj nee na amu fa foofa day awuma fa benn wéeruwaay ku dul yàlla sunu borom tabaaraka wa taala comme xam naa ne foofa moom moom rek laa fa yaakaar kon nag kon nag du topp seen bëgg-bëgg bay merloo yàlla ndax nit ñi moom seeni pression seen bëgg-bëgg boo ko toppee ba tax laa def loo xamante ni wuute naag li la sa borom digal bis boo wéeteeg sa borom danga ko ndax ñoom kat liñ mën rek mooy boo fi jógee ñu sang ba set euh, lëmas perkaal yóbbu la jébbal la sa borom daal di wàññi ku dem dem togg ca togg ay ceeb lekk loolu rek lañ mën foofu lañ ca yem ndax wàllub teen la ku dikk ca pind ba nga yem ginnaaw nag boo demee ba ba ci sa capaax ndaw la da ngay mujj wéet sa borom na nga fexe ba kooku nga xamante ni moom seen diggante moom mën naa yàgg lool te bu neexee day continuer di neex bu naqaree mën naa continuer di naqari kooku nag na nga fexe ba déggoog moom bala ngaa dem ci moom sëriñ moom loolu la xamoon ne leen seen pression yi ngeen may teg daal ak seen coow lu bari lii daal bu leen yaakaar ne mën naa tax mukk ngeen dévier ma ci li ma ne parce que du ma topp seen bëgg-bëgg bay def loo xam ne day wuuteeg li yàlla suñu borom tabaaraka wa taala bëgg ndax sëriñ bi demoon na ba bay bay bay misaal sax joxe benn benn nettali boo xam ne am na kum ko wax ne ko yëgal ne daal euh, boroom xam-xam buy dem ci ni buntu kër buur ci nitu nguur dafa mel ne weñ woo xam ne dafa daw dal ci ay ay dem àll waaw moom noonu la ko kooku moom xam nga ne moom xalaatuta dem di seetu buur dégg nga mu ne leen maali gadan xiina azrailu du ni ruuxi nasirun siwa mawlaaya fil usri ëllëg de bu fekkee ne azrail muy malakul mawti ñëw na di ngëpp sama ruux awma benn ndimbal bu ma fay yaakaar ku yàlla sunu borom tabaaraka wa taala hmm? maa lii ma yowma xasril xalqi kullihimu rab rabbun latifun siwa mawlaayi zil basari ëllëg bis ba nga xamante ni maanaam ña ngay pang mbindéef le di leen dajale jëmale leen ci seen borom ngir seen borom atte leen nee na day awma kenn awma fa kenn ku ma fay yaakaar ku dul borom bi nga xamante ni ku ñee ku ñeewante la muy ki nga xam ne moom mooy borom mbindéef maali isa duru adnaani wa azmanani xawsun rahimun siwa mawlaaya yaa zumari bis bu ma tawat daloon tawat joo xam ne soongoong loon na ma dem na ba ngiisaan ma muy tawat joo xam ne daal wa ne ni mooy tawat joo xam ne dalay ngiisaan ba nga xamante ni ku la gis da ngay jeex tàkk tawat ju mel noonu su fekkoon ne dal na ma awma benn xettalikat wala ab yërëmikat bu ma fay yaakaar ku dul yàlla sama borom tabaraka wa taala yaa zumar yi yéen sama mbooloo in safahooni an wirdin axastu bihi li sayxi siidiya sayxil badd badwi wal xadri fala akunu rasidan misla rusdihimoo fa sawfa yamtaasu yowman azamu siyat su fekkee ne dañ ma jàpp nit ku dese ah ngir lan muy wérdi bi ma jàpp jële ko ci Cheikh Sidel Baba Cheikh Sidel moom nga xamante ni mooy sëriñu ah, ah, ñi nekk ci eh, àll bi nekk sëriñu ñi nekk ñi ñi nekk ci taax yi su boobaa day man d'accord naa fala akoonu rasidan misla rusdihi moom mhm. du ma nekk mukk ku jubum xel comme seen jubu xel ñoom mhm. parce que ñoom dañoo jàpp dañoo jàppe seen bopp rasid jàppe ko safiih mu leen leen rusdihi loolu li ngeen jàpp euh, rusd mhm. loolu seen seen seen seen seen rusd la waaye man xalaatuma def loolu léegi nag loolu day wane sëriñ bi way gum way bëgg a bokk du tax mukk mu sens yoonam bari na ñoo xamante ni jugoon nañ ne coow ci aw yoon waaye dañoo wàcc fi béréb gis ñuy def loo xamante ni am nañ complexe bañ ca ànd ñu mujj ànd ca mujj tegg seenu yoon sëriñ bi moom dafa yore woon dafa yore woon jikko yoroon gudd rek la baaxoo moom kay boo dee gàtt gàttal waaye moom day gudd rek parce que wenn melokaan la yore moo tax mu ne leen euh, lii ngeen nekk jàppe ne moom mooy ku ci nekk yow yaay rasid ku ci nekkul yaay safiix d'accord naa waaye seen façon rasid gii moom nanguma caane nekk leen ci yéen waaye nag xam leen ne fa saw fa yemtaasu yow man azama yi dana am benn bis boo xam ne dana ñëw bu ñëwee de danañ xam maag yéen kan moo ci jaar ci yoon wu wu yaakaar naa histoire àtte na ko ñu bari ñi nga xamante ni dañoo nekkoon ca lu wuuteeg lam nekkoon kenn xamatul ci seen moom dara te moom moom tey turam wër na àdduna dégg mhm. moo tax mu jeexale xasida gi bayit woo xam ne nuuroo naag yaqaalu irkan leerkan jeexe mhm. muy alhamdulillahi is kaanat safahatuna mhm. idaamatul wirdi wal askaari wal fikari man de maa ngi sant yàlla su fekkee ne li nga xamante ni mooy samak desee di sunug mooy saxal gi may saxal ay wért di def ay askaar di di di xalaat allazina yaskuroona allaha qiyaaman wa qu'uudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal ard rabbana maa xalaqta haza batilan subhanaka faqina azaban loolu nga xam ne ci laa nekk su fekkee ne loolu mooy tax ngeen ne ngeen askane man ne damaa dese d'accord na d'accord fii daal la sëriñ bi nekkoon euh, ñaari xaside yi boo leen xoole daal la nga ciy gën a yéem ci sëñ bi mooy mooy way gum way nga xam ne fu mu fi mu nekk donte mbooloo mépp dañ koo contre moom loolu du ko tee nekk ci li mu nekk moo taxit képp koo xamante ni maanaam da ngaa yaakaar sëriñ bi war ngaa mel noona boo nekkee ci tubaab bi tamit na nga góorgóorlu ba la nga xam ne moom mooy sa baax di sa diine bu la ci kenn jële bu la ci kenn jële léeg-léeg nga gis nit koo xam ne ah dafa teew fi béréb boo xamante ni xëy na ay ay nit yi personnalité ñoo fa nekk waaye ay nit tubaab lañ waaye jigéen day ñëw ne ko jàpp loxo rek mu daal koy jox loxo. complexe mm-hmm. parce que jàpp na ne bu ko defee. Mm-hmm. bu bu ko kii maanaam euh, dañ naan kii ab con la wala dara. Mm-hmm. nga nang doon con. te sàmm sa diine moo gën. waaw. dégg nga. te man damaa jàpp sa kon dëgg sax mooy kii kii kii mooy yàlla kon dëgg mooy kii mooy yàlla kon bul nangoo bul nangu pression yooyu ñu lay teg ba tax nga bëgg a changer sa saw doxin déedéet loolu sax booy seet moom wax dëgg yàlla. morit mhm. euh, yi moom am nañ ci am nañ ci tawfeex moom. Mhm. waaw ñàkk complexe googu. Mhm. moom moom moom ndax boo boo léeg-léeg da ngay ci gaar yi ngay gis léegi léeg ñu sol seen i bàyyilaat di lëfër lëfër rek. <laughs> kon loolu. wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla waaye na ci murid yi gën a kii. mooy nit ki la nga xam ne moom la xamoon ci réewam. sëriñam jàngal ko ko. mu nekk lu dëppoo ak diineem. fu mu fu mu mën a nekk. na nekk ca loola. tey itam da ngaa war a xam ne loolu la la ña nga nekkal di nawe waaye tey jii mënoo ñëw fii ci Italie masalan bëgg a jaay tubaab bi ak tubaabe mm-hmm. parce que ñoom mënta ne yow la nga leen mën a jaay mooy sa culture mm-hmm. waaye mënoo mënoo ñëw lañ ne lañ nekkoon ñoom nga xam ne xam nañ ko bu baax nga nga leen nga di leen ko jaay loolu mënul ne mm-hmm. kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci doon tënk euh, ñu ngi jéggalu su fekkee ne wax ji ñàkk naa leer euh, yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp yàlla dimbal ñu ba ñu mën a roy sëriñ bi mm, mm. roy ko xarafan bi xarafin sax xëy na mën naa jafe waaye ñu jéem rek nañ jéem rek macha allah jërëjëf sëñ Waran ah, jërëjëf euh, sëñ Omar ci jàngat yu am solo yooyu rawatina bi nga mujjee muy xaalu safihun bi ak ci ba bi nga ko mujjee alhamdulilahi is kaanat safahatuna idaamatul wirdi wal azkaari wal fikari hmm. muy lu am solo loo xam ne sëriñ bi wax na ko sant ci borom bi subhaanahu wa taala ci ñooñu ko doon wax ni dafa dese hmm. kon eh, ni nga ko waxee rek mooy murit bu nekk kon lii war na ci roy sëriñ bi ci woy deng ci mbir mi nga ne waaw hmm. ah, woy ci deng nga xam ne ñëpp buñ baaxoo woon jaar feneen tam nga xam ne li li wér nga tënku ca loolu lu am solo la waaye sëñ Omar eh, xasida gi jàpp naa ne ak contexte bii dëkk ba toll war nañ di ko gën a jàngataat bu baax a baax a baax a baax Euh, ñëpp di ko bàyyi xel ñu xam ne taxawaay yi mooy taxawaay yi nga xamante ni sëriñ bi moom la taxaw woon euh, jamono bi ñu koy imposé bi ñu ko doon imposé ak buuri jamono yi nga xamante ni euh, moom la jamononteel muy taxawaay boo xamante ni taxawaay bu ama am solo la. Mhm. kon ñu ngi ndokkeelaat bokk yëpp di ñaan yàlla yóbbuñ ca wis ba ak jàmm. Mhm. kon xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo sëñ Omar ñu door a yëkkati jotaay bi. jërëjëf suñu waaraan ñu ngi am mbégte baax a baax a baax ci dalal gi ngeen ñu dalal fii di sant bu baax a baax itam suñu Ablaye Seye gis nañ ne maanaam sonn na lool ci liggéeyal sëriñ bi waaye nag sëriñ bi moom loo ko defal rek sa bopp nga ko defal nii muy def di e, dalal ñoo xamante ne dañuy wax dañuy wax mbindi sëriñ bi mu di ko tasaare ci àdduna bi ak ci lënd gi muy internet bi loolu liggéey la boo xamante ni liggéey bu kawe la ñu ñaan suñu borom tabaaraka wa taala defal ko tew tawfeex gën koo kàttanal ba lépp lim ci yaakaar suñu borom defal ko defal ko ci lu kawe kawe njortam di sant bu baax itam sëriñ daan Diop moom itam gis nañ coono yi nga xam ne moom lay daj ci tasaare njàngalim sëriñ bi yàlla na ko suñu borom tabaaraka wa taala fay ko di sant bu baax itam suñu suñu Alsaan Jéy mi nga xam ne yàlla dogal na mu fekkee waxtaan wi dëkk fii ci Gardone ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaara in uridu illa al islah mastatatu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëñ Amar di sant bu baax a baax sëriñ Xaadim Seck ak équipe Touba Vision bi nga xamante ni ñoom tam gis ngeen liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la ñuy def foofu ca daaray kaamil di tasaare uh, waxtaanu wàccaayu màggal yi muy lu am solo ñoom tam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di sant assistant yi nga xam ne ñoo fi nekkoon muy sëriñ Alsaan Jeey Jannatu ak sunu caméraman bi nga xam ne moom la ñu àndaloon muy sëriñ ab Sey di leen jox kon dox dig daje ci beneen jotaayu waajal màggal